bon d'abord ñi décliner invitation bi euh, mooy ñi nga xam ni ils sont à l'origine du problème <laughs> le professeur Ismaïla Madior euh, Fall euh, ñëpp gis nañu comment il s'est dédié en tant que titulaire de chaire mm-hmm. Aïssata Tall Sall mais le théoriciens des des, des forces occultes là duñu nekk à l'aise dans ce cadre là mm-hmm. par mm-hmm. contre il y avait des membres de la l'APR comme Oumar et d'autres qui viennent assister aux, aux mais am na ñoo xam ne de par leur responsabilité mhm. euh, euh, dañ ci am une part de responsabilité léegi la deuxième partie de ta question mal bi ngeen di traité ñenn ñi nga xam ne ils sont à l'origine de ce mal ouais. ils ont préféré vraiment ne pas ñëw wax wax ci quoi waaw c'est c'est de la pudeur qu'ils ont surtout mhm. dañu xaw a am kersa mhm. pour ñëw teewee ci loo xam ne jubbanti loo xam ne ñoom ñoo ko dëngal et pourtant les propositions de Aïssata Tall yoo xam ne jàpp naa am na solo da koo joxe nii rek mais bu teewoon xëy na doon na ëpp non elle elle c'est-à-dire elle veut pas paraître quelqu'un qui boude hmm. mais li muy joxe hmm. bu ko joxe woon en commission dina am yeneen input yoo xam ne bu ñu ko synthétiser dana dana dana dana gën a baax hmm. mais tu tu fais une contribution écrite et puis tu balances même ñun ci commission yi dañuy def ay contributions écrites parce que le temps qui nous est imparti est très petit donc am na ñoo xam ni seen ay contributions dañ koy verser seen ah. ay observations